parce que Grand Yoff là beaucoup, mais tamit qu'on le veuille ou pas partielle du point de vue de son poids démographique et électoral moi, la commune la plus importante du département de Dakar pour Pastef ci échéance bu ñu mun di jëm muy locale législatif législative et présidentielle. donc je ngi nuyu monsieur le maire Jamil Sané di nuyu ñëpp ñi nga xam équipe bi mu un travail remarquable et exceptionnel euh, dans la commune des Parcelles Assainies. Euh, le grand Diaga Sek nak bon naa def ci mom un petit témoignage bala muy dugg ci vif du sujet parce que xëy xata yu waxtaan bi ak jotaay bi mën nako baña maye mais dafa nek nit bu exceptionnel nit bu exceptionnel parce que ndo dafa am solo ci diine Jibril daan na wax ne yonent bi dañul dima denk dénk ndo bama ma bis dina ñëw mu donnuloo ko mais ndo bu ñu nekké dans des zones urbaines notamment quartier bi ñu nekk nga xam c'est un quartier résidentiel fofu nit ñi tijjeeku wuñ bu baax parce que nit ñi miinante wuñu ndax chaleur bi fa nek ak liggéey bi wacc kenn talul moromam dafa nek nit bu exceptionnel bo xamné ne daf ko kase nit ku ubbeeku nit ku yaatu mais nit boo xam ne depuis bi ñu xamante passé 2017 2018 dañu si di ñu conseiller di ñu accompagner di ñu orienter ci loo xamante ne lu amal njëriñ projet bi la mais loo xamante ne ñun ci suñ bopp suñ développement personnel lu amal njëriñ kon maa ngi saisir occasion bi grand di sa taxawaay di wax na ñoo découvrir parce que c'est modestie parce que c'est humilité parce que da nga nekk nit boo xamante abattre un travail exceptionnel dans l'ombre bu cool yi mais bu liggéey bëriwee yow la maa bi nga xam ne moom ma et paysage politique sénégalais apport et innovation manam landerneau politique bi ñu nekk a Pastef ak ay organisation yu de ñoo xamné ëpp 300 partis politiques lan la ci Pastef apporté parce qu'en réalité nous sommes am solo lolu moy li nga xamné mo ñuy distinguer par rapport aux autres mais nous sommes tax ñun ñuy xam lan mo ñuy différencier ak yeneen candidats ci élection yu ñu jëm élection présidentielle ëpp ci solo ñu yor profil bi nga xamné moy le meilleur candidat waxuma pour le Sénégal mais pour toutes les élections africaines produit bobu nak soko amé il faut nga xam yan caractéristique la am c'est important politique nak buñ koy wax comme ñëpp nuñ ko xamé moy aaru gérer cité bi naka ngay def ba gérer ce réew bu ñuy wax art de gérer de la cité nak moy réew dafa am nuñ ko organiser ndax ñëpp mënuñu nekk fa ñuy dogalé il faut que mu am ño xamné ñom lañuy la au nom de l'intérêt général et au nom de tout le monde nous avons fait une décision nga am président de la république décret un ministre a arrêté un député a été assemblée loxo mën la ndax dalay engagé avons voté ci loi appliqué ci yow si nga bañ nous avons loolu politique kon partout fu ngeen dem ku leen wax da politique politique

bu nous la nee defal politique ñëpp ne la non génnal ci lii ndax du sa yëf loolu dafa laaj taxaw seetlu bu dee passé en 2014 nous ñu koy créé Sénégal am plus de 250 partis politiques kon lan mooy suñuy différence par rapport aux autres Sénégal champ politique bi mun nañ ne ñaari affaire moo ko caractérisé bi ci jiitu mooy ay partis yu dul jeex mais ku ma laajoon fii ci assistance bi na ma tuddal 10 partis politiques au Sénégal su wàññee bayam ci 5 day day càng quel que soit notre politique quel que soit niveau de culture politique ay parti yo xamné nit da créer pour négocier dara jot ci pouvoir Nous avons créé le créer contexte de parti en 2014 ñi nga ils avaient un objectif clair moy bâtir un parti sérieux et différent parce qu'en réalité buñ la une pour la république nga alliance pour la république c'est une alliance pour les revenus alliance la bo xamné ne koppar ko tax a jug bu la nee woon lan moy sen doctrine politique lan moy sen projet de société lan moy sen programme ña fa nekk mënuñu ko wax président Macky Sall mënu la ko wax Pastef nak dafa ñew pour casser lolu dafa ñew pour indi ben dynamique bu bess dynamique bi nak ci ñaari tank lañ koy mëna naté Premier tank, bi moy lan ci offre politique bi manam lan moy suñu gis-gis ci réew mi deuxième tank bi moy ci definu politique bi moy ñun naka nañu wara a politique suma ma ci offre politique bi moy da ngeen gis né Sénégal amna ay question yo xamantene ay goulot d'étranglement la maanaam moo téye réew mi ba réew mi doxul mais ay question la yo xamné kenn ñemewu wuko aborder avant président Ousmane Sonko ci candidat sérieux à une élection présidentielle kan ngeen mësa dégg muy aborder ay questions yu sensible yu mel ni franc CFA donc il y a une différence avant président Ousmane Sonko quand il a aborder de façon sérieuse documentée et argumentée la gestion des ressources naturelles jël livre 256 pages tuddee ko pétrole et gaz au Sénégal chronique d'une spoliation mais qui mooy daanaan avant président Ousmane Sonko kañ ngeen mës a dif mu def diagnostic ci économie sénégalaise daal di ne lenn rek la manqué moo tax mënut développer, développé mooy absence de tissu industriel mooy dëkk bi lépp lu ñu fiy bàyyee dañ koy génne exporté ko à l'état brut te pourtant produit yi bu ko tubaab tubaab yi defaree ñun lañ koy indil jaayaat ñu ko loolu est-ce que économie bu dëgër la dëkk bi kan ngeen mës a gis muy inspecteur des impôts bu siw à part le à doyen àllkat bu ñemee dénoncé les nombreuses fraudes fiscales et la corruption qui gangrènent l'administration sénégalaise vous avez donc nous sommes mel les nag nous la insufflé la politique sénégalaise mooy lan opposition qui est basée ci idée nga koy basé discours Nous avons bu ngeen déggee ñaan c'est un parti violent Pastef dañuy une ci des sociaux yi gis ngeen vous ngeen un débatteur de passé pour une chaîne de télévision fan ngeen mus gis un candidat de Pastef à une élection muy locale di législative di présidentielle té la ba muy laaj batu askan wi proposé wu un programme musul am loolu c'est pas l'image de Pastef Pastef du parti wu kat Pastef du parti wu kat ñi fa nek ñi ci bari li ñi am ci aduna am nañu ko ñi nga xamné ñu ngi ci buntu yakaru yaakaaruñ ci politique pour dund mais ay nit nañ ñoo xam dañu am seen dignité mais à un moment de l'histoire ils ont pris leurs responsabilités pour ne réunir mi mu neex mu par la force de la et nous nous assumer la nous assumer négocier parce que nous am héroïsme pour nous nous, nous, Nous da ngay pour nous accepter ñu sacrifier intérêt ou nous. Thomas Sankara noble souveraineté alimentaire ci espace bu deux ans trois ans Burkina danaka lepp lu ñuy dundee bayatuñ ko won lepp lu ñuy importer importé tuñ ko won ñokay koy bayal seen bopp mais ñi nangu ñi anéantir tout ce beau discours là toute cette alternative bi nga xamné mënon na wal Afrique yépp parce que lan ay tubaab ñu ñëw def seen complot ay nit ñu ñëw capituler ba tey Burkina gis ngeen li fa xew près de 30 à 40 du territoire mu ci loxow ay forces yo xamante ne tubaab yi ñoo nekk seen ginnaw di ruux ñi tal réew est-ce que di ngeen nangu tay Sénégal fi mu jaar yépp ci ay trajectoire li mu am ci ay potentiel en ressources naturelles du pétrole pétrole bloc bi nekk Sangomar xam ngeen ñaata baril moo fa nekk un milliard de barils de pétrole bu ngeen demee Saint-Louis offshore profond nga xam ne GTA muy Great Tortue Ahmeyim ñu bokk ak Mauritanie li fa nekk ci réserve ëpp na 500 milliards de mètres cubes de gaz ñëwaguma teraanga ñëwaguma yaakaar te loolu mooy réserve yi nga xamante ne trouver nañ ko Sénégal li mu am ci zircon Sénégal li mu am ci or Sénégal li mu am ci phosphate Sénégal li mu am ci calcaire Sénégal li mu am ci ilménite Sénégal li mu am ci fer Kédougou fer de Falémé mais potentiel yooyu loolu yëpp est-ce que dina am ci réew nit di fi feebar ñu koy évacuer France wala Maroc